lan moo la ci gën a capté. waaw lu ma ci gën a capté moom mooy daanaka dañuy dëxëñ euh, température dëkk bi tolluwaayu réew mi. Mm-hmm. boo xoolee lu ñu résumé euh, ñaari mbir ci génn muy bu ci njëkk moom mooy fièvre politique bi nga xam ne moom moo am au niveau de la coalition Benno tout gravite autour aujourd'hui de la candidature Amadou Ba. Euh, jàpp naa ni comme nu ko doyen doon waxee sànq à juste titre on a l'impression que le Sénégal n'est plus gouverné depuis quelque temps amul benn problème bi nga xam ne juddu na fi ñoom ñu yëgal ko seen yaram ba indi ci solution bi nga xam ne sénégalais mën na ci duut baaraama mmh. yaa ngi ko doon wax sànq problème mu état civil bi problème bu garaaw la parce que non seulement assuré wuñu même service minimum parce que quand même droit de grève dafa am mais droit de grève dañ ko war a réglementer. Mhm. Euh, xoolal euh, depuis loolu waxuma xele yu war a inscrire école mais am na ay xele yu bëri yu juddu. ci mhm. période boobu est-ce que xam nga ni buñ ci tegaatee ay fan yu néew. maanaam dinañu yegsi ci délai légal bi nga xam ne. Mhm. officier d'état civil amatul droit bind leen ci registre yi. sans bu am ordonnance d'autorisation d'inscription tardive. ñoom ñëpp ci juge mais ñoom ñëpp fan la ñuy dem ñaara mën a am <laughs> soit ñu dem assemblée nationale réviser suñu code de la famille wala wa kulli alit tant disposition bu mu ngi foofu officier d'état civil bu ci bind xale au-delà du délai mu am grève wala leneen tu risque tu t'exposes même à des poursuites mm-hmm. parce que yoon moo ko waxtu donc ñu toog di seetaan jàpp seen cal yëgaluñ ko seen yaram boo waxee ñu ne bennoo candidature ci man nag loolu aussi moo ma jaaxal ci Sénégal faut pas parce que démocratie certificat d'inhumation yi am na ci ah, euh, kayitu juddu yi pour inscrire parce que ah, ñu ngi naan ubbi tey jàng tey mais balaa ngaa ne naam ne ki nga xam ne tey amul kayitu juddu toog mais am na beneen problème bi nga xam ne sax am na ba ci acteur politique yi parce que vingt cent vingt six candidats yi ku ci nekk war nga indi sa document bi nga xam ne c'est actualisé am sa certificat de dem wuti résidence pour mën a wuti sa casier judiciaire mm. sa sa sa ak sa certificat de nationalité bi nga xam ne pièce fondamentale la pour euh, dossier bi boobu ba léegi kenn mënu ci jot parce que maire bi dafa paralysé doyen wax na ko sax bu ñu nekkoon benn état bu responsable dafa am ay domaines yi nga xam ne mënta xaar yooyu quel soit en temps de paix comme en temps de guerre dañu war a assurer continuité service public boobu mhm. état civil bi état des personnes ci la bokk mhm. je pense que dañ ko néglali négligé pour ñëwaat ci euh, titre quotidien yi loolu tey lu ñu koy firnaal moom mooy foo gis ci titre yi Amadou Ba jàppal Amadou Ba bàyyil mhm. mais problème mu dëkk bi gis ngeen ko ci weer yi passé waxuñu ci inondation yi jaar nañ fii mm-hmm. amul benn mesure d'envergure bi nga xam ne mën nga ci dut sa baaraam ne ñoom ñoo ko indi mm-hmm. mbirum cherté de la vie bi waxatuñu ko dañ ko teg ba côté encadrement de loyer fàtte nañu ko léegi seeni candidature moo tax aussi bu Mimi Touré waxee que Amadou Ba dafa war a démissionner loolu dama koy appuyer parce que au moins aujourd'hui dafa am benn confusion Euh, déjà ñaari mbir moo warul woon a am président warul woon dugal loxoom naan day jàppal tànk candidat loolu lu jël aujourd'hui tey euh, warta jël moyenu nation yi wala mu déplacer otoom dem di fa tudd candidat loolu même en tant que démocrate il devait se garder de faire d'une certaine manière de s'immiscer dans la compétition coalition am candidat c'est de bonne guerre mm-hmm. lu war a am la mais mu ñëw di def publicité avec les moyens de l'État wala dans des circonstances yi nga xam ne bu nekkul woon chef de l'État du fa toog loolu lu ñaaw la mais comme ñoom dañ ko tàmm parce que li ci gën a yéeme moom mooy mbir mi ba muy tànn ba ñuy publicité seen candidat fu ñu ko defee salle des banquets au niveau du palais de la République tey ban loi ban sañ-sañ moo may waa Bennoo ñu toog ci saalu République ne dañuy fësal turu seen candidat loolu yëpp tey ci tënk hmm. euh, nga nekk opposant wala nga nekk majorité hmm. boo nekkee républicain hmm. yan yi da nga ko war a bañ wala nga jommal ko sa bopp te yàlla tax euh, beneen aspect bu ma gis ci titre yi pour jeexal moom mooy euh, beneen problème bi nga xam ne moom la Sénégal di dund moom mooy fii démocratie état de droit dafi nërmeelu démocratie def fii nërmeelu gis ngeen ko ci loi wu bi parce que loi bi euh, ndaam sénégalais yi amul kenn ku ànd ak xelam ki nga xam ne jàppul ne dafa jot ñu organiser langue bi langue politique bi mais bu ñu koy organiser dañ ko war a teg ci ay anam yu mucc ci ay mmh. moo tax ba cour de justice de la CEDEAO waxee Sénégal sa loi wu bi ci anam yi nga ko tëggee baaxul Euh, loolu Sénégal dafa waroon na nangu loolu parce que dañ ko ne day violer impératif u sécurité juridique maanaam mbir looy tàbbi da nga war a am rationalité bu maîtrisable yow tey boo jàppee xoolal tey jëndee nañ arrêté ne ñu y'a sept million sept million et quelques trois cent ay inscrits nee nañ foofu la ñuy stabiliser ci fichier électoral bi mais ci sept millions yooyu ñoom dañoo limaale ña nga xam ne ñooy primo votant yi nga xam ne dañoo bindu yàggut mais amul kenn ci ñoom ba sànq ci suba ki nga xam ne jot na sa pièce d'identité. te ku yor récépissé doo voté. non mais c'est que dañu jël ay nit ay votants yi nga xam ne amuñu benn garanti que ils seront parce que trois 300 yooyu yokku tey dara waxuñu ne fii ak 2025 ñoom ñu dem jëli seen pièce d'identité wala même bu ñu fa demee xam nañu Sénégal demee est-ce que danañ ko fa fekk ba jot ko. et pourtant ñu ne ñu yéen da ngeen war a indi minimum zéro virgule six ou sept millions trois cent. ñu ne leen lu yooyu est-ce que seen carte d'identité duñ ci bind. Euh, ne ne peut pas voter comme ni ñu ko defee. yooyu yëpp ay ay laaj yu samp mais tey loolu rek pour wan ne amul rationalité bu maitrisable moom mooy tey ñu ngi dugg ci ay jongante ñu ne stabiliser nañ jël arrêté en date du vingt cinq. ne sept millions et quelques mais boo xoolee fichier chiffre boobu ça va être démenti par la parce que soit euh, dana euh, du ko bat parce que gis nañ ko Sénégal lu ci du ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo bindu primo votant yi ñooy jot ci seen carte wala ñooy déplacé donc déjà chiffre bu ñu jël à la base c'est erroné pour dem ci donc loolu déjà ñoom ci bopp am dañuy làmbatu parce que maîtriser wuñu ko avancé nañ benn chiffre ne foofu la stabiliser mais dans la réalité da xam ne dara wóoru leen ne chiffre boobu bu baax la mais loolu bu lay gën a dugg ci biir dossier bi mu am moom mooy lan moom mooy tey Euh, dañ lay wax ne dama récolter ay signature loi bi dafay demander ay signature demande euh, waxul leneen ah. waxul ay données beta alpha signature si tant est que mots yi am sens ak signification bu ñu la waxee signature signature la ñu war a contrôler hmm. mais ñoom dañuy teg signature yi fële duñ ko contrôler parce que mënuñu ko yàgg naa leen ko wax depuis ñuy tëgg loi bi ma ne leen jëlee mais au défi ñu ne ma ak xarale yu bees yi ma ne ko non ça veut dire pour nga mën a contrôler signature ça veut que déjà ñoom ci seen base de données dañuy am signature bi nga xam ne moo nekk si mhm. pièce d'identité mhm. ñu daaf mais beneen bi aussi yow muy collecté en tant que tel signature boobu dafa war a méngoo comme ni ko banque yi di defee ci chèque alors que bu amee variation foog ñu écarter ko moo tax ñoom dañuy ñëw constitution bi de da nga war a wut 2000 signatures minimum ci cette région après yokk ci nombre bi nga xam ne moom la arrêté bi génnee muy minimum euh, zéro virgule six ou fichier bu ñu stabiliser mais loolu amul benn rationalité bu nga xam ne c'est maîtrisable d'une certaine manière parce que da ngay indi ay signature ñu contrôler foo dëkk nan nga euh, voilà foo ban commune ngay voté yooyu tout ça donc déjà foofu la mbir mi léegi beneen bi aussi ci conseil constitutionnel bi dama jàpp ni ex-experts yi ñooy jël place su juge yi conseil constitutionnel mais depuis droit am antiquité romaine mais ñoom droit pour nga wone ne d'accord nga ci benn mbir sa consentement mooy signature donc lu ñuy doon xaar ci conseil constitutionnel boo ñu trouver les voies et moyens pour contrôler signature mais xam nañ ne mënuñu ko léegi informaticiens yi ñooy décider à la place des juges alors que question buy poser c'est une question d'éthique démocratique et de bonne gouvernance mais surtout d'impartialité garantie d'impartialité tey Euh, ñun jàgg nañ ko laaj ba sànq ci suba kenn joxuñu logiciel bi kenn waxuñu kan moo tëgg fan la jógee joxuñ mettre ñu en situation ñu mën a suñuy propre expert pour ñu xool ndax amul ay prox ndoll yu nekk ci biir tey informaticiens ya fa toog kenn mënula wax lan mooy seen lien ak Macky lan mooy seen lien ak Antoine Diome lan mooy seen lien ak ñeneen yi nekk à l'extérieur il paraît que ay sociétés yi yeneen lañ ko jox mais société yooyu kenn waxuñu ay lobby nekkuñu ci ginnaaw donc amuñu benn maîtrise ci li nga xam ne moo nar am ñu ne leen léegi donc nañu dem moo tax sànq maa ngi ko doon wax ci suba ci seen naataango ma ne mbirum parrainage bi ñun 126 candidats yi lu ñu ci duggee <laughs> lenn rek la may fàttali mooy mbëkk mi lu xale yi di def da ngay jël gaal dem xamoo looy tase loolu moo tax aussi ñun ñu bañoon ñu ne Sénégal démocratie fu mu toll waruñu nangu ñuy dellu ginnaaw dellu ginnaaw moom mooy lan mooy ndax war nañu organiser mbir mi foog mu nekk rationalité bu maîtrisable ñoom nanguwuñu loolu dañu ne nañu ne nañu dem léegi tey boo ñëwee fii nga jël say signature jël sa parrainage yooyu ñu contrôler euh, gis nga bii passé yu bëri dañ leen di recalé pour autre motif. autre motif mooy dañ lay dàq nga ñibbi sa kër. kenn kenn du la wax autre motif ñoom sax xamuñu lan moo tax ñu dàq la. ba sànq suba waxuñu ñu autre motif boobu lan lañ ci jublu mais beneen bi est-ce que ñun tey Sénégal mën nañu d'accord que prochain président foog bu nekk nit ku am wërsëg parce que euh, ci 126 yi dañuy def. loterie waaw il faut nga am wërsëg. non dañuy def loterie ku nekk ci kanam moom sa candidature day leer man moom dindi sama candidature. voilà parce que loterie yow yow sa candidature day leer doo ça veut dire doo am doublon. Mhm. ñay ñëw ca ginnaaw ñooy ñëw. est-ce que mhm. tamit kii du du tiro biu c'est sérieux c'est confier la destinée d'une nation kenn ki nga xam ne il la possibilité de faire la paix comme la guerre et qui va avoir notre dernière signature pour les cinq ans à moo tax ma jàpp ni dafa am benn niveau di responsabilité ci gestion bi parce que bu ñu waxantee dëgg waa DGE euh, xam nañ ñu ñun xam nañ leen euh, fii kenn xamu fii lu kenn xamut kenn jàngu fii lu kenn jàngu bu dee dañu bëgg mbir mi dox foog ñu waxante dëgg hmm. waxante dëgg moom mooy laan jarul ñuy nax nit ñi parce que seen bopp la ñuy nax parce que y a la y a y réalité des faits yàgg-yàgg dana am heure de vérité bi nga xam ne dañuy toog hmm. ñoom ñu reconnaître seen propre impuissance pour contrôler affaire yi